ñu am mbégte lool ba xamuñu sax lu ñuy wax waaye dinañ jéem rekk ma bëggoon rek tudd ci ñaari tuur ci li nga xam ne Alaaji Njaay wax na ko fi léegi mu nekk loom solo ñaari tur yooyu ci njëkk mooy Serigne Cheikh Béthio Thioune mi nga xam ne moom laa àndaloon jébbalu ji ci Serigne Saliou boobu étudiante lañu ma di ko ñaanal yàlla dëgëral taxawaayam bi ci des mooy soxna su mu doon wax te mu téye woon ma ma nekk tout tànk am benn weer moom ñu koy ñu koy tudd si muy soxna seen kare muy sama wëllëre waajur jigéen nee na baayam taalibe sëñ Fàllu la woon nee na bu ñu daan dem ci tool yi ndindi baayam ma daan tëgg di woo taalibe yi yaayam di togg laax bi sëñ baraan kare mooy baayam kooku moo tax man ak ci barke alaaj njaay mii sama yaay doon uuf si ñu di ko tudd sëñ fàllu di ko tudd ci barkeem ca la ma sëñ fàllu ñaanalee maam benn weer kon mën nañ ni dara du hasard àdduna di dox di dox di dox ba sëñ galas mii soxnaam si nga xam ne maam soxna maam matee ko jur mën naa ne ci ndey yi laa bokk sëñ Galas mi ñu soxna maam ma dem bu kon sañ Fallou ñaanam gën mën naa ne moom ma topp tey jii lii continuité la waaye il faut ma leeral dara dañu nekk ci gouvernement moom ni ko ni ko sëñ bi waxee léegi yàlla def ñu doon ànd ak son excellence le président Macky ànd boo xam ne xëy na yàlla moo ko tudd parce que nekk suñu vocation ñu def politique comme dafa nekkoon suñu wëllëre ñu xam ko depuis lycée ba université 2000 bi yàlla defee Ablaye Wade jot pouvoir bi ñu woo ko pour félicité ko mu invité ñu pour ñu ñëw jàppale ko ci liggéey bi ñu bañ bañ bañ mu insister boobu yàlla tudd na lii ñu soobu ànd ak moom ci PDS ci cellule cadre yi ba yàlla def mu am ay jafe-jafe ci parti bi génn ñu génn ànd ak moom ñu créer l'alliance pour la république li tax ma di ko fàttali nag dafa am fii ñoo xam ne ci jigéen ñi ay jàmbaar yoo xam ne ba président jógee rek dañu jóg ànd ak moom te booba tudd président Macky Sall sax yombul woon te sëñ Galas mii bokk na ci xaritam yooyu xaritu démbam yooyu ndax li may xam naa ko Euh, sëñ Baara am na fu bëri fu mu jaar ak président Macky Sall fekkee naa ko mu bokk ci délégation soxna Mariama nee na boo demee nga nuyul ko njiitu réew mi président Macky Sall sëriñ bi nee na ñoo ngi koy ñaanal yàlla gën koo jàppale nee na xam nañu ni ku yaru la sëriñ bi nee na mosuñoo dégg mu wax benn wax bu jaaduwul. nee na bu nit ñi dee wax ci moom sax lu ñu wër ta wax. mu mën ca tontu. mu mën caa tontu. tontu bu leer. tontu bu leer. nee na du ko tontu ba sax du ko ci defante. sëriñ bi nee na kon ma koy ñaanal yàlla jàppale ko. ak mboolem ñu ngi seqal gouvernement bi ñëpp sëriñ bi nee na gannaaw loolu nag nee na ma ngi ñaanal sunu sang bu tedd bii di sëriñ Touba sëriñ Sidi Muxtaar Mbakke yàlla bàyyi ko fi bu baax a baax a baax a baax te may ko wér ak sëriñ Abo Baraka Mbakke ak njabootu sëriñ Touba gépp ak njabootu lislaam gépp ak gaa yu baax yëpp